may dem sa ji bu ma koy xam suñu baay yi la ñu suma pap Alassane moo ko jur man Emmanuel Gomis moo ma jur donc c'est pas par hasard ku du hasard bu ma àndee moom ndax suñu baay yi xarit la ñu ànd nañu depuis dimanche euh, Baas du xëy bu nee bu ne Sénégal bu nekk Ziguinchor du xëy tëdd gisuma ñu ngi ànd daal si man moom bokkande ay ñu si des mais Baas mënuma leen wax. la dimension de l'homme comment comment nak le bëggoon réewam surtout Ziguinchor tey yàlla jële na ko fii te fu sore ndax febar. gaañu na Paris mais yalla def na may na ay katam wa wa wa waa këram su sobe yalla dañ ko fi indi ndax bas nu mu buggee jigéen soor pour mu tëdd fenen du du woon jaadu. kenn waru ko won présenté parce que biteur bu mag aussi biteur bu magla mu ngi won euh, bon de ba presque ñom ñoko formé won suñu grand yi ak magam Ousmane Ndiaye Ousmane Ndiaye moo lepp quoi. même bi ñu nekkee aussi Ousmane Ndiaye moo nekkoon joueur en même temps entraîneur parce que moom moo doon euh, recadrer xale mais grand boobu tam dafa suivre magam dafa lu magam wax rek moom lay def quoi moom amul benn problème. c'était le plus modeste de la famille c'était un moom bëggul sax feeñ bëggul sax nga ne kii mooy soow ni kii mooy bas sax mu laxatu. un gars très simple très humble vraiment il n'a pas d'exemple au niveau de la famille waaw moom man musuma ko gis fu mu xulóowee xam nga sax léeg-léeg di nga am rakk nga dóor ko musuñu dóor dóor ni pour fekk la ci mbedd mi ngay football wala nga daw école dóor non non non au contraire bay ñëw da ngay def jéyee ñu lay dóor moom mooy ñëw taxaw muy arrangé ba pare mu ne la bu ko defati grand bi vraiment bon ñun daal moo doon suñu waliw quoi waaw moo doon suñu waaw vraiment c'est un exemple. Le Casa Sport était une famille une famille une, euh, une bande de copains une bande de copains moo tax lépp ci ñom. avant le match ces gars-là c'était le le plus sérieux du groupe parce que lu mu def ko gëm daf ko gëm té dina la wax lu muy def kenn mënu ko won téré dugal bi Amna bëss en plaisantant

Bokandé tontu ko fële ne ko pied gauche bo dougalé pied droit man pied gauche da ko dougal mu ne ko salam c'était contre la gendarme. d'Arc mu dugal biwoom ba pare tourné gestu ne bokkande ajoon dugal pied droit Bokandé ne ko maa ngi ñëw sur rond central bi la taxaw pied gauche la dougal ñaar il a été toujours présent, sincèrement. gan bu gentle gentle gentleman musuma xam bas ni dafa febar man depuis temps boy, musuma ko gis mu febar. suy fait. sax du ko wax du ko ça passe inaperçu oui ce que je peux vous dire en gros qu'il repose en paix yalla bu wé ñu andi ko ci jamm andi ko yàlla xaaja arjana waaye en grosso modo quoi c'est un ami d'enfance on a tout fait c'est un groupe bien on était un groupe soudé santiaba c'était une famille Ziguinchor était une famille oui, sincèrement Ziguinchor benn famille une woon Santhiaba bu kot waaye question football Santiaba, bu école rurale la place de Gao waaw tout Ziguinchor képp comme le football ci ñaari côté yooyu la école de football la woon évolué moi j'ai eu des cassures tu vois football moo def lii quatre fois fracture ouverte yëpp ci football on n'était pas protégés. mais quand même on avait l'amour du ballon quoi sincèrement sincèrement parce que nag champion la woon mon champion sincèrement il avait toujours la rage de il était hargneux que de beaucoup chaque fois muy ouais, il était comme ça oui bon sincèrement qui pose en peu quoi. ah on a copié, parce que nous copier ci Bassirou parce que amna lu mu def turum turum mom des na faw parce que wow, waaw na pas... bo xamné jël coupe du Sénégal moom moo dugal bii bi indi na fi daal coupe bu ñu njëkk am fii Casa Sport moom moo ko indi waaw kon turam des na faw parce que dëmb rek euh, gars yi ñu ngi doon def ay kiyam euh, am lu mu fi lu mu fi bay ampleur bu ngand la nag kon booy daal war nañu euh, roy si moom def lu ëpp lu li nekk ci li li mu def daal waaw xale yi daal loolu laa loolu laa leen di. c'est ça la dimension de l'homme qu'on a perdu aujourd'hui c'est le Sénégal qui a perdu Sénégal moo ñàkk doomam te Jigéen Jigéenchor euh, moo ñàkk ku ko base fa finalement à la limite tu savais même pas ce qu'il pensait Donc, xam ah, day ree rek lu yomb ci son sourire ah, son sourire c'était plus facile alors si on pouvait traduire le sourire, là j'aurais pu le faire. Mais il ne parle pas. Ah, quoi. Ah. Je demande à cette génération de joueurs d'avoir l'amour, l'amour de cette terre-là d'abord. Quand on joue, on doit jouer pour le terroir. Le Kaza, était, c'était un cœur. Waouh, nous nous parce que qu'on est c'était c'était une famille. Je me suis ak cité au sud ñu nekk Je ne man wax ñu franchement j'ai le cœur merci, je ne peux plus Bassirou sama nijaay la mais